ci sama gars yi seen bi seen bu bees la bon ko bee yàggul ñi ngi ñaan koy gën ci page bi nga abonné partagé gars yi ngi nuy ñëpp di ziar ñëpp doomu Sénégal bi ak Allemagne bi di malik ciow malik ciow man naa dem bu masa bu baax la defati mom malik ciow mi la leen wax ni mané xalé bi dal bu yabo Sénégal ci se gën ka gaaw wo parce que boy bi mi ngi wane boppam ci équipe bi di Milan AC massa bi nga xamanteni Milan do nako amal dem mom malik ciow mi nganda massa la def massa bo xamanteni ni dafa wane bopam progresser lo xamanteni ni nii ko gis di ko jox cër parce que booy bu ndaw la vingt ans kese la am moom Malick Thiaw di def loo xamante ni nii mën naa ni ñëpp koy wóolu Malick Thiaw mii soo ko woowee boole ko ñoom Koulibaly ñoom Abdou Diallo ak ñoom Moussa Niakhaté da ngay am défense boo xamante ni nii day complet ku génn keneen dugg kon Malick Thiaw mii Aliou Cissé dafa war a def lu gaaw convoqué ko si sinon rek Allemagne dinañ ko convoqué parce que booy bi am na avenir xale bu ndaw la te mën na la muy def Aliou Cissé def lu gàwwoo ko match bi nga xamante ni nii Sénégal doon na ko amal ci weeru mars bi mu nekk match qualification coupe d'Afrique li may ñaan Aliou Cissé mu gaaw woo Malick Thiaw bala ñu ko ñàkk parce que booy bi mën na de mën na trop trop trop te booy bii boo ko boolee Formose Mendy da ngay am défense boo xamante ni ay xale yu ndaw la ni doon parce que Formose Mendy vingt ans kese la am Malick Thiaw mii vingt ans kese la am ñoom ñaar boo leen boolee si défense bi da am défense boo xamante ni xale yu ndaw la ni doon maanaam rakk yi war a woo mooy Sofiane Diop ak Enen Diop ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ yoo xamante ni ay attaquant lañ kii mi ngi ci Nice keneen ki mi ngi. Monaco mën naa ni Enen Diop nag la mu war a woo ci équipe nationale bi même Maggi sax su mënee na ñëw na ñëw mais Maggi woonoon ko ba sonn nungut a ñëw kon na jéem a naxanteeg rakk ci mu jéem a ñëw ci équipe nationale bi représenté Sénégal parce que baayam Sénégal la yaayam marocain la mu juddoo France kon booy bi amul dara loo xamante ni nii mën naa tax mu football France lu dul dafa juddoo kon Enen Diop mii Aliou si moom it war na koo bàyyi xel waxu équipe nationale bi mu ñëw wane boppam parce que booy boo xamante ni am na temps trop te xale bu ndaw la 19 ans kese la am di football ci équipe Monaco bi kon boy bi dafa gëm boppam man li muy def te bi dafa teel am taay man looloo tax ma ni Elen Diop mii ku ko woo ci équipe nationale bi dina def dara parce que am boo ko boolee ñoom Iliman Ndiaye ñoom Sadio Mané ñoom Ismaïla bu ndaw la am na avenir te day football ci équipe bii nga war nañ kaa woo woo indi ko ci équipe nationale bi mu progressé wane boppam wane ni moom deretu sénégalais mooy daw si yaramam wane ni moom baayam sénégalais la même du Sénégal doo nekk si dossier bi parce que Marocain ki français ki mais Aliou Cissé dafa war a naxtaan ak booy bi woo ko ci équipe bi parce que genre booy yi nekk avenir ëllëg équipe bi kon booy bi dañ kaa war a woo mu ñëw ci équipe nationale bi même mag gi sax duñ ko fàtte parce que mag gi moom it am na temps trop Sofiane Diop topp nañ ci ba sonn mais nungu a ñëw mais dañ koo war a jéem a naxtaan parce que ñu bëri ñi ngi wax ni Sofiane Diop France lay xaar te man pour man Sofiane Diop bu demee France li dal Boubacar Camara moo koy dal parce que jàpp naa ni français yi bu ñu woon Sofiane Diop bu mu xës xës ba signé France mënatu la dem benn équipe kon dootuñ ko woo yàlla tax Sofiane Diop na ñëw représenté Sénégal wala mu dem Maroc sax au moins parce que xam naa ne moom Sofiane Diop su demee France mooy waaye dina parce que bu demee France France dootu ko ko man loolu leer na ma naññ naññ naññ am na talent nag am na talent mais dafa fekk ni français yor na joueur yoo xamante ne nii ñoo gën a dàq football Sofiane Diop fuufa fuufa fuufa fuufa kon Sofiane Diop dafa war a ñëw représenté Sénégal mook eneen Diop mag ak rakk yi ñoom ñaar ñaari mag ak boo leen amoon si attaque bi da boo xamante ni day baax Sofiane Diop ñëwal Sénégal Sofiane Diop ñëwal Sénégal soo demee France da ngay waaye di de gars yi ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé